non vous cautionnez moo tax ma ne tey est-ce que loolu dem ba fragiliser sax liggéey ñi nga xam ne ñooy gendarme yi nga xam ne ñoom ñooy gën di accompagner ñi ñoo xam ne ñooy civil yi. xam nga yéen militaire yi ma lu bees. l'histoire est là pour prouver ce que je dis dama ne tey nervi di def ay actes de violence di blesser ay nit di def yenn affaire yoo xamante ne rafetul ci gis-gis amul kenn koy rafet mais la politique le foot ak lampe ak violence ñoo ànd. leader yi nga gis yëpp ñu commencé dem ba am benn notoriété mu bare mu néew ñoom ñëpp ils sont obligés d'assurer leur propre sécurité te boo génnee nag bu fekkee ne dañ nar a dal sa kaw mais day wu ma ko mais tey tant que organiser wuñu de telle sorte que bu nit demee ba am yenn notoriété yi état xool nan lay def ba ñu jël ay professionnel ñu encadré ko kon lii jàpp naa ne saafara ko du yomb. mais mais capitaine dañoo gis ces ñuy dooree. Euh, di violonté euh, la population ñu gis ne aussi gendarmerie parce que man damay insister bu baax ci euh, gendarmerie parce que wax gendarme da ngay wax militaire voilà tey jii est-ce que gendarme yi nga xam ne ñoom seen liggéey mooy rek maintenir l'ordre képp bépp doomu aadama boo xam ne dafay indi violence ñoom dañ leen war a arrêter tey lan moo waroon nekk taxawaay yooyu les gendarmes loolu foofu laa bëgg la euh, attirer sa attention. bon gendarmerie tax ñu bàyyi leen ñoom ñuy mel ni comme ils étaient dans leur rôle. gendarmes yi ils sont une unité boo xam ne dañu am hiérarchie gendarme bu génnee moroomu gendarme moom lay waxal su waxul ak moroomu gendarme am autorité am lay waxal amuñu pour wax ak CNR seeku ñoo ñoom dara. non ñoom ils sont là pour cortège présidentiel. mais est-ce que yaakaaroon yooyu du loon dóor nit yi ñoom dañ leen waroon arrêter aussi. que euh, est-ce que c'est leur rôle aussi. est-ce que c'est le rôle. donc c'était quoi le rôle dañuy wax le politique et le militaire ñaari affaire yu bokk la parce que ku ci nekk tam yow sa case ngay yam man tey bu fekkee dama ànd ak euh, ay nit yoo xamante ni dañoo yor ay gouverneur et cetera te man ma nekk l'autorité bi nga xamante ne tey la police ou la gendarmerie à charge de ma sécurité man maa war a wax ak ñi ma àndal wala les gendarmes ñoo war a wax ak ñi ma àndal parce qu'il y a beaucoup en fait dans ces trucs là mais je sais de tenue il reste dans buy wax gendarme lay waxal. moo xam moromam la wala supérieur mais du dugg ci leneen léegi nag ñun comme li ma lay wax bu dee nag dama koy jugé froidement cortège présidentiel ñooñu utuñu fa dara te gëm naa ne du président sax moo leen indi mais des leaders politiques qui l'accompagnent ñoo ànd ak moom. non il faut arrêter on a vu le président euh, euh, dem ba scorté ko sax yow moom niveau bu mu toll. niveau de responsabilité bu toll cest à am na loo xam boo koy analyser il faut que tu te détaches un peu xam nga tey man mii nii ma invité ma génn sama kër ñëw. citoyen lambda. ñëw toog fii di wax ak yow su ma paree damay duggaat sama oto dem. mais on parle du président de mhm. la république. xale nga kooku mi ngi si ay responsabilités yoo xam ne talul ay non convoi bi kan moo ci nekk ku ci nekkul ak et cetera moom su heure bi jotee il sort il se met dans mu dem parce que ñi ko wër yëpp institution la en fait à commencer par son aide de camp ñooñu taluñu détail yooyu. maintenant bu ñu duggee nag ci foule bi il faut accepter aussi l' effet de la chose politique donc président de la république fu muy lay fekki. mais leaderu APR yooyu mais ñooñu ñoom am ay nervi man gis naa ñaar ñoo xamante ni benn région lañ bokk mais di rayante comme pas possible te pourtant ñoo bokk benn parti donc loolu man inventé wu ma dara lu bees j'analyse tout simplement une situation pour dire que lii nii tan que demuñu ba nit yi ñu xamal leen ne bu ñu demee ba ak yenn niveau yi xëy na état moo war a organiser pour ñu xool nan la ñuy assurer seen sécurité parce que même élection yi da nga koy gis da gis un nit yuy assurer sécurité y a te loolu état moo ci war a jóg tant que nag état jëlul disposition yooyu gëm naa ne problème nervi yi waxee ci tey dañ ci waxaat déwoon ak ginnaaw déwoon. donc finalement la responsabilité euh, des gendarmes et des militaires mënu leen situer par rapport à cette affaire de nervi. ñoom seen yoon newu ci ñoom ils sont formés pour assurer une mission gis nga terme de référence yooyu bu ñu leen ko joxee ñoom mission bi la ñuy assurer ils sont pas là am affaire ma wala Mademba non ñoom loolu du seen doom bu amee xëy na ku ciy wax seen autorité yi ci kaw ñu ñoo ci wax. te peut-être dinañ ci wax ak l'autorité bi nga xamante ni moom la ñu amal affaire muy le président de la république wala ministre des forces armées mm-hmm. waaw mais ñoom si seen biir ils sortir faire la mission pare dem seen d'accord donc finalement euh, capitaine man suma la déggee j'ai comme l'impression que ñun euh, suñu ay euh, militaires suñu ay gendarmes excusez-moi du terme dañ leen di commander rek même sax bu ñu gisee la population muy souffrir si kanami nervi yi ñoom seen yoon ne aussi donc est-ce que kon loolu du donner raison ku mel ni comme Ousmane Sonko gis nga sortie bi nga xam ne defoon na ko jamono jee passé di wax wàllum espionnage ay nit yoo xam ne ay mercenaires yoo xam ne kii di président de la République moo leen engagé est-ce que loolu du dem ba euh, dëggal lu muy wax. muy mel ni comme ñun suñu ay euh, force de l'ordre amul benn njëriñ population bi. pourtant bu dara amee fenn dañuy woo police gendarmerie bu dara xewee fenn dañ leen di woo donc cadre yi nii du benn en fait faut pas entrer si lu ñu wax la civilianisation des forces ñi duñu ay civils ce sont des gens qui obéissent te ñoom seen supérieur la ñu a affaire donc tey booy dem mission ñu ne la ok vous avez pour mission d'encadrer le cortège du président la république. yaa moo affaire ak kenn tu encadres le cortège du président la république maintenant leneen li ci xew parce que dafa loo xamante ni parti politique bi la parti politique bi nag ni muy dund ak ni muy doxee ak dérive yi ñu ciy def mais gendarme bi lan moo ci yorom lan moo ci yorom mais est-ce que dans un état normal euh, war nañoo engagé ay nit yoo xam ne des mercenaires wala sax di espionner ay activistes wala sax ay opposants est-ce que dans un état normal war na fonctionner noonu eh. surtout la présence de ces mercenaires yi nga xam ne kii di Ousmane Sonko daf ko rek dénoncer non man xaw ma personnellement lan moo tax ngay wax ay mercenaires et cetera comme li ma wax gis nit loo nekkul munoo ci wax mais lenn moo am na man démissionné naa armée mais pendant quatre ans j'ai été surveillé il faut qu'on me surveille réew caaxal vous portez une voix voix boobu ngay porter mais dafa mën a am ay ramifications. mais jusqu'à entrer dans l'intimité euh, des gens ñun ñëpp dañuy dugg suñu intimité man je parle en connaissance de cause ñun ñi ñëpp on est suivi on est sur écoute on est surveillé et c'est normal mm-hmm. parce que li ñu dugg nii du caaxal li affaire état la donc c' est normal qu'on te suive xaw ma nag moom ban cadre lay je ne sais pas j'ai pas suivi sa déclaration xaw ma lu tax mu koy wax xaw ma yenn preuve la mais ñun ñëpp on est surveillé on est suivi et c' normal loolu man gisuma si dara. Mm-hmm. l'État est obligé de nous surveiller bien sûr. Mm-hmm. le débat sur le franc CFA. dañuy gis aussi da nga siy ardu euh, lu bëri mu mel ni comme euh, capitaine Dieye moom dafa bokk si ñi nga xam ne dañoo gëm ne on ne peut pas se détacher du nga teg ko fan capitaine. non man moom mosuma wax on ne peut pas se détacher du franc CFA. loo wax capitaine <laughs> man dama ne. <laughs> franc CFA dañ ciy génn. et la meilleure chose bi nga xamante ne tey moom la ñu war a def mooy ñu génn ci mais li ma d'accordul nag mooy ñi nga xamante ni ils sont en train d'opter pour une rupture loolu c'est impossible parce que li war a. taxaw qu'est-ce que vous appelez euh, rupture brutale. non genre déwén nañ génn ci franc CFA bi non franc CFA monnaie du caaxaan en fait monnaie li ko composé soo ko xamoon non doo taxaw naan nañ ci génn comme ça amuñu benn problème par rapport ak. mais da nga jàpp ne nos états. Euh, amuñu assez de maturité pour dem sans pas, la France pas états sont fragiles xam ñuy wax pays à extrême fragilité mais yow nee naa moo xam ne 70 pour cent yi dañuy yalwaat réew moo xamante ni yow fii ñaata xaalis ñoo fiy circuler comme faux billet réew moo xam ne xoolal pour nga faju problème la pour nga naan ndox bi tey Sénégal problème la électricité bi Sénégal problème la ban franc CFA ngay ngay dugg. franc CFA xam nga lu muy signifié. mais capitaine bu la toppee est-ce que ñun suñu état yi ñu nekk si.